bon mang ngi lay nuyu di nuyu wa RFM yëpp ak sen auditeurs yi bon défaite bi c'est comme on dit la loi du sport quoi et le football non football mo mel non, mais war effectivement ne ñun am nañ ay limites yo xam ne war nañ ciy liggéey ndax euh, suñ joueur yi équipe bi niveau yi dañu soré on a vu que on a joué avec trois douzième hommes ñi remplacer les blessés et les suspendus ñep suñu fi nekkoon duñ jouer donc on n'a pas une équipe un effectif équilibré pour faire le haut niveau je crois que le war nañ ci liggéeyaat. Mhm. Euh, entraîneur bi sélectionneur le Cissé am na ci wàll ci li xew am déet wala li mu qu'il mu am rek choses la jëfandikoo. bon man de jort nané amna ci responsabilité ndax à 2-0 tu fais un changement vestiaire avec trois joueurs bon qui n'est pas le profil vraiment pour apporter des solutions on sait que bu ñu en deuxième mi-temps les 15 premières minutes mais l'Angleterre va commencer à garder ses deux buts. Tu parles, je crois qu'il y a un niveau dans l'hémophobie il est un peu faible sur le discours pour motiver les gens et apporter des changements. Ce n'est pas des changements d'homme à homme effectifs, mais ça va agir sur le mental je crois que là il a des limites quoi sur le discours. Mhm. Nous le ëllëgëm euh, prolongé notre contrat avant la avant coupe du monde bi voilà dem coupe d'Afrique 2024 euh, fi la a coupe d'Afrique 2022 continué bi wala ñu ko mu continuer ci sa gis-gis. bon là j'avoue que vraiment la fédération a été un peu naïf entre guillemets quoi parce que coupe du monde entrée pouf dem. Donc, il a un bon agent qui a mis la pression pour prolonger le contrat, prolonger à la veille de la Coupe du Monde, mais il fallait pas, il fallait pas prolonger. Il, il fallait attendre la fin. Déjà, on a prolongé, mais je crois qu'il faut trouver une solution parce que le haut niveau, il faut entraîner de haut niveau. c'est mon avis quoi. Gëmo li que wax entraîneur Sénégal la wara vous nga ni war entraîneur Non, le Sénégal je crois que ça c'est un c'est un faux débat c'est un faux débat. On veut la qualité on a des cahiers des charges, on voit des gens qui peuvent faire ça. lui il est là depuis 2015. Mais vraiment, il a fait des, résultats sur la durée. Mais on a gagné, on a été combien de fois au tir au but On a marqué combien de fois 3 buts, plus de 2 buts dans un match Combien de fois on a fait des erreurs C'est des lectures au On gagne à l'arracher, quoi. Et l'autre, ça ne peut pas continuer. Mm-hmm. Aliou Suisse, ak itam yenn ci joueurs yi euh, am ñi nga ne ne euh, coupe du monde bi moo war a doon seen bu mujj sax d'ailleurs euh, pas ci coupe du monde bi seulement mais ci ci équipe euh, nationale bu Sénégal. man bëgguma ci tudd tour mais boo xoolee rek rek le marocain gis nga équipe Maroc la football ça a été monté pratiquement par Ali Razik mais il dit que il se projette sur la CAN que la coupe du monde c'est pour préparer la CAN. mais nous aussi dañu war def loolu suñu bop quoi à chaque fois que le Sénégal sort on croit qu'on doit gagner gagner gagner mais dans la durée il faut qu'on se prépare mais il y a des joueurs yo xamné un ak sen âge bo gissé blessures yi nga xamné c'est l'âge qui parle donc nous, vraiment on doit faire la mutation quoi indi mm. joueurs renouveler effectif bi quoi dans la durée parce que li li sur moi suñu pyramide football bi c'est très bien fait U23 U18 ces gosses là ils réussissent le football mais ñu mën na jël ay boy ñu football les Angles, ils ont amené des enfants jox leen ay penalty ci Europe bi ñu raté ko mais ils les ont gardés et continuent à leur faire confiance. waaw mhm. ah, sëñ Fallou de wax dëgg yàlla volontaire la fi indi waaye euh, li nga fi wax ci football njortuñ ko woon jërëjëf. sëñ Fallou Dieng euh, bokkoon ci comité national bi doon waajal euh, xew-xewu tey bii di journée internationale volontaire bala ñoo sori mën nga ñu tekki baatal lan mooy volontaire. volontaire daal maanaam ñun bañ ci di liggéey. di ko tekki rek tubaab sax dañoo sonn lool ndax euh, dafa mel am la mel ni bénévolat mais niñ ko mujjee tëkke daal ci ñëpp ànd ci maanaam day liggéey liggéey boo xam ne da nga ci coobarewu kenn du la ci forcé te doo ci xaar dara maanaam aussi mais nag ki teg si ONU PNUD yi ak yu Sénégal yi dañ la jox ndàmpaay ndàmpaay boobu nag kenn mënu koo tuddee solde kenn du ko tuddee salaire day am ndàmpaay bu ñu la jox xam dañ ci mën a man ki def ki lii man ki def lii maanaam bu dee au niveau national mais bu dee au niveau international ndàmpaay lañ koy tuddee mais dana nekk ndàmpaay boo xam ne dana nekk directeur sax du ko mën a am donc daal liggéey la boo xam ne yaa koy tànnal sa bopp kenn du la ci forcé hmm. da nga koy liggéey daal maanaam pour communauté bi loolu daal mooy volontaire. Hmm. est-ce que volontaire yi bëri nañ Sénégal euh, ci lan la ñuy yëngu est-ce que lu dox la ci ci réew mi. volontaire yi bëri nañu corps de volontaire yi boo xoolee au niveau international. ay Peace avec les Américains JICA avec les Espagnols COICA Euh, France volontaire JICA Japon COICA mm-hmm. les Coréens ak France volontaire nous sommes au niveau international au niveau national il y a le service civique il y a les ASP Nous maintenant ay volontaires la ville de Dakar ak l'association communautaire yi nga xam comme les Croix-Rouge avec les mouvements à foulard on les considère comme des volontaires. Mm-hmm.

motax ñu ñëw pour ce qui est du Sénégal en tout cas amuñu xey donc maintenant ils se rabattent euh, ci euh, volontaire. wa loolu problématique la ndax volontaire également woote nek activité de substitution manam amoo def rek nga ne xaaral ma nek volontaire man amna chance liggéey service civique national jël nañ fi ay volontaires yo xamné ils sont venus chez nous avec la maîtrise te juróom benn junni lañ doon am par weer ndax loolu moo nekkoon ci loi bi. ñoo ñooñu léegi am na ñoo xam ne ay gouverneur lañ am na ñoo xam ne ay directeur de projet lañ am na ñoo xam ne également UG des programmes même am na ñoo xam ne actuellement mën naa ci wax kenn ku ngeen xam seen collègue Ahmed Aïdara il a fait deux ans chez nous il avait trente mille francs par mois am na ñoo xam ne secrétaire municipal lu Touba ñaa nga fa donc ay def administrateur civil après parce que balaa ñuy jël nga nekk volontaire bu dee service civique boobu da def ay formation mais de façon globale da nga ay jeunes yoo xam ne dañu nekk université vacance jot ñu am camp il se propose volontairement mais ça c'est sur la durée de ay six mois am ñoo xam ne ils viennent faire deux ans parce qu'ils disent man damaa bëgg a def benn trajectoire boo xam ne mën naa jaar fii pour mën a def leneen loolu donc li nga wax am na am na ñoo xam ne ñëw pour amuñu lu ñu def mais boo xooleelee volontaire volontaires internationaux am na lu ñu def mais dañu am métier pare ñoo def ko. Hmm. moo tax fii ci Sénégal tàmbali lañu aussi def loolu jël ay xale fii di leen France ñëw def volontariat pendant six mois. ay étudiants yu jóge ay Diofior maa ngi leen nuyu au passage ay John Waar maa ngi leen nuyu au passage déjà xam ne tu ne même pas que ñoom loolu mi ngi seen xel da nga foog bu ñu demee France dañuy daw ils ont fait six mois ils sont revenus ñu accompagner avec au ñam ay projet ay 2 millions 3 millions xam ne doo ko fay mais on commence à trouver des solutions que volontariat bi du liggéey mais dana jàppale également quelque fois. pour nga mën a liggéey mais ñen ñi dañ ko jàppale liggéey parce que quand je prends le cas euh, le cas des ASP yi nga wax volontariat peut-être lañ fa duggee mais jamono ji ñu ngi ñaxtok pour ñu recruter leen dugal leen ci euh, voilà ci euh, fonction publique beeg wala ñu jàppe leen ni ay kat yi nga xam ne kat nguur lañ. wa lolu donc ce qui veut dire yenn say la leen fay dugal euh, du bokk ak la leen fay téye. ba xam nga lolu souvent manam ci ni ñu sose mbir mi. moy mhm. am ay rëq-rëq ca départ ba. mané kon comme volontaire éducation nationale yi. parce que dans le schéma bu njëkk bi da ngay def volontaire nga def ñaari at bàyyi ñu jël ñeneen mais bi ñëwee nekk une force ñu téye leen téye téye dafa mujj l' a reculé def leen plan de carrière asp aussi montage bi première limite bi dañ ko monter seulement sur la sécurité donc pour ñu jëfandikoo leen ci yeneen point dafay jafe ñu téye leen bëri nañ bon y avait peut être une volonté politique vraiment d' et souvent sur le tracking sur le contrôle ci biir mooy des tuuti kii fekk actuellement volontaire yi ñu bëree bëri dugg nañ ci ay xale mais xamuñ ne si des volontaires parce que sur le texte c'était pas assez explicite mais avec loi bi ci biir dañ fi ñu def def nañ ci ASP. mais mais volontaire ci njàng wala ci mpàcc ndax tudd nga volontaire yi ñu jëloon ñuy jàngal ci l'école yi am nañu jàpp ni résultat yu mu jur taxu ko baax lool ndax euh, boo déggee gone yi volontaire yi jàngal bu ñuy euh, làkk français tey mbaa ñuy euh, def mbirum xam ñu bëri dañoo jàpp ni. la ñu waroon xam des na lool lu am lam am bon loolu man aussi am naa chance jàngale nekkoon maître d'application dans les écoles normales mais ci volontaire yi du ñëpp am na des jeunes yoo xam ne bi ñu ñëwee dañ la man tubéy sax du ma ko jënd dama ñëw pour voyager dagale seen salaire dem seen yoon am na ñoo xam ne jàngale aussi moo xam ne bu duggee ils ont aimé le métier les gens les accompagnent première génération yi ils ont fait de très grands résultats mais Sénégal danger bi moy syndicalisme bi à outrance bo nekkee syndicat def am nekk permanent ñu jël la yóbbu fële dootoo le niveau également a pêché par rapport à ça mais je ne suis ko jiñ volontaire parce que le volontariat était une truc parce qu'il fallait ouvrir des classes

mais xam nga souvent maanaam ci leeral bi man bokk naa ci benn formation ci xëyu ndaw yi ci sélection yi on fait les entretiens mais da nga gis benn xale bu ñëw nga ne ko nii la nii la nii la mu ne man comme nii la vraiment man maa ngi dem parce que moom bi mu jógee ci dëkk ba ka ko jël def na ko wutal naa la liggéey mais bu ñu nga xam ne sa aqulaay taala ngay wax nga ne ko fii kat du liggéey danga am quatre-vingt mille francs waaye ñett at ngay liggéey amoo def lii amul grève amul nangam amul nangam mun ah, père perkat man merci maa ngi dem mais je crois que discours bi ñu wax ni ñi bu leen waxee dëgg am na ñoo xam dañoo ñëw bëgg ko ne ci parce que am na volontaire affaire santé yi c' était pas des médecins c' était pas des infirmiers mais nous on les a enregistrés volontaires à la santé communautaire service civique national am ñu bëri formé na leen ci wàllum pàcc meeg ñoom seen. effectivement hmm. mais parce que ci formation bi day durer ay trois semaines mais c' est juste les trucs de base. Mais ce n'est pas les, techniciens qui def, mais on amène les gars de la santé pour faire la formation. volontaire ci seen Wal bopp lan ils ont loxo le développement wu réew bon l'OLU, lu fës la mais maanaam firnde bi moo il ndax a des outils pour calculer l'impact du volontariat sur le PIB et sur le développement économique mais on xoolee à travers tout le Sénégal ba ay bànni Israël. derrière Kédougou partout vers les frontières surtout des volontaires ñu ngi ci santé bi ñu ngi ci éducation bi ñu ngi ci environnement bi foo xam ne état bi moo fa doon nekk nekku fa wala mu ne fa te doyut volontaires yi ñëw du ko mottali mais maanaam lañ fay mottali amuñ ay poste yoo xam ne mën nañ ko cee calcul ba xam ne lii la ñu indi am na point yoo xam ne ba fa volontaire amutoon ndox du fa am ba fa volontaire amutoon santé ba dey sooxee ba fa volontaire amutoon environnement ba du dox te loolu lépp volontaires yi ñoo koy liggéey. est-ce que ça pose pas problème parce que euh, buñ ko mënul euh, xayma té ñu né euh, ñom war nañu dugal seen loxo bu baax ci réussite ODD yi avec objectif 2030 wa xam nga ci ODD yi moom foofu sax xëy amul problème trop trop ndax soo xoolee te loolu moo tax Sénégal ñu gën a góorgóorlu pour defar loi bi ndax affaire bi dafa tasaaroo woon mhm. ministère de la jeunesse am ay volontaires volontaires internationaux yi nekk fii communes de volontaire li ñeen di fay du bokk indicateurs du bokk dara du bokk organiser loolu lépp de volontaire bu nekk ODD e nga 2 b 6 nga indicateur de départ ñu mën koo ñu mën koo saytu di ko jàngbat di ne kon ODD 2030 et là tu as raison c'est un objectif et ça c'est au niveau mondial il faut ñëpp liggéey mais li ci xaw a soxla aussi mooy ñun au niveau décentralisé maire yi ak yooyu ñu bëri bëri comprendre guñ enjeu yi ci nekk pour ñu mën leen jàppale. Mm-hmm. est-ce que boo nekkee ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni euh, boroom kër yu bëri sëngéem nañ seen i doom jàppuñ ci dara dëkk bi metti dund gi seer est-ce que réew mu mel noonu mbirum volontaire mën na ca euh, mën na caa meññ law ca law bi nit ñi yaakaar yéen ñi ciy yëngu. waaw ndax xam nga volontaire boo ko tegee ak sur le plan économie rek. du sotti parce que maanaam volontaire affaire xol la affaire yëg-yëg la affaire gis-gis la man dama gis fee ci Kër Masaar bari dem ay xale benn tëli boo xam dafa dagg wate di ki sikkuus dagg bu metti sax ñëpp di ko seetaan ils se sont organisés avec eux seet benn waay bëgguma wax trop mais xam ngeen ko parce que day def ay émission jàppale leen ñoo defar tëli bi ba léegi mu ngi ne neen aw yoon pourtant booy ay chômeur lañu liggéeyuñu et de la citoyenneté loolu moy volontariat manam nga xamné xif nga mais sa morom bi xiif na nga fàtt sa bopp également jàppale ko volontariat loolu lay jangalé bon pour mu développer nak effectivement li nga wax ñi nga def ay points est-ce que duñ ko dugal ci école yi dugal ko ci université bi étudiants amna am na étudiants yoo xam ñun bi ñu Grande Muraille ils se sont proposés volontairement de venir avec nous. ñi wax ni dañu wara indi service militaire force ci réew mi xale yi jaar formation armée as tout loolu foog nga ni pexe la. bon loolu xëy peut-être euh, amna solution mais amna na rëq ndax man li gëm manam yar ak ñak pexé bokul discipline ak soumission bokul. la discipline c'est le sens de la responsabilité te loolu du armée rek moko joxé joxe mën ko joxé sa kër mën nga ko joxe ci école bi mën ko joxé fenen parce que on a vu que tous les anciens militaires ne sont pas des nekkuñu ay wàll yu gis nañ ancien militaire bu def lu jubut def nañ ko génne ci daara def jubul donc amul cellule boo xam ne kii rek moo jàkk moo baax ci yëpp mais xalaat nañ ne ñun buñ doon avant nga dem fonction publique surtout ñi mën a état bi mën a contrôler nga jaar ci volontariat comme yenn pays niñ koy defee je crois que doon na ci am solo. Hmm. lan lañ ñu war a mën a def tey pour promouvoir cette culture du volontariat culture du volontariat bi nga xamante ne mooy indi solidarité ci am réew. bon li ko mën a def maanaam ñi ciy sonn te maa ngi leen nuyu au passage c'est les volontaires du troisième âge avec le doyen à Masson Diop nga xamné ñoy ay mag lañ ay administrateurs civils ay inspecteurs ay instituteurs ay chauffeurs ñu retraités ils ont un corps de volontaires et qui travaillent vraiment def ay projets ils ont fait un projet à Ziguinchor la lampe de renforcement scolaire malheureusement ñu accidenté ci moto mais dañu une école Le niveau scolaire mi ngi tàmbali donc pour que ñu def la promotion des volontaires vers la solidarité il faut ñu nous ko ci école bi ñoon ci sonn aussi état bi di leen delloo njukkal. laaj ñu xaalis juste la bëggoon ñëw parce que ay euh, des personnes du troisième âge bu ñuy def lu ni mel di ci def ay jéego te on les donne pas en exemple ça pose problème ci réew mi. mais voilà même bu ñu wax benn prix du chef de l' état wala ñu takk leen benn médaille wala sagal leen ni ñi gis ko ce serait très très bien parce que gis nga Georges le volontariat c' est l'humain profond da nga gis benn volontaire étranger bu ñëw fii il avait une mission à Yëmbal c'était sur la renforcement scolaire mu gis fa benn boy bu am genre cancer ci gémmiñ bi il a elle a changé sa mission ba xale bi opère nañ ko mu mujj wér mais bi muy restituer elle a craqué quoi elle a fondu en larmes am na volonté xam dañuy ñëw fi Sénégal du ñu ñibbeeti parce qu'il voit des postes de pauvreté il faut agir et pratiquement aussi ils savent que li waroon am lépp amut. Mhm. donc daal di leen jox ay raaya di leen sargal daal dana ci bokk suuxat ci xale yi aussi teel leen koo jàngal. Mhm. et solidarité école. nga am benn tubéy boo solu sa kër jor di ci jox wala Babacar jox doom na ko boo demee nga joxe ko. waaw waaye waaye ñi nga xam tam dañoo sàlloo volontaire ba peut-être bëgg cee profité euh, feesal seen i poos itam ñu jar a waxal la boo xoolee association yi euh, wala ASC yi comme yow nee nañ ma léegi ci nawetaan yi ku ci fësoon nga ca Mbàkke Bawol euh, ASC yi. ngay xool nawetaan bi dirigeant yi ñoo ci jariñu loolu itam lees war a seet la ci lu gaaw sax. moo xam nga loolu premier responsable bi état la. ndax quand tu ne rends pas compte ensuite mouvement associatif bi texte yi ko légir dañ ko wara changer ndax parti politique yi syndicat yi fédération sénégalaise de football ñepp ñoo bokk de texte bu leen régir le mouvement associatif mais nga nekk de nawetaan pendant trente ans pendant 40 ans jël subvention tu ne rends pas compte nawetaan nga jël xaalis def sa poste ah. tu ne rends pas compte mais voilà des limites qui font que il faut que nous am bien benn temps avec le maire on dit que monsieur le maire ñu bëgg a def benn ak convention subvention yi nga indexé ko au niveau de ban quartier moo gën a set ban équipe mo ëpp rempli ay critères def ay critères mu ngi non amna solo mais xew mi tey lan mo koy mandargaal gal euh, na cérémonie wa amna cérémonie fi ci sen wet bo xamné ne ministre de la jeunesse moo koy jiite te loolu aussi bëgg nañ ñu wax. fi ci Ndakaaru fi ci Ndakaaru waaw. Mhm fii seen wet nous sommes sur place du du souvenir Il faut lañ foofu lañ koy fait, à partir de 10 heures mhm. journée internationale volontaire 2022 internationale volontaire 2022